la commune est face à la mer. Mais au sol sont clouées la majeure partie des pirogues. la pompe asma parce que ñun asthmatique yi yëpp isim bi def nuy yëngal parce que suñu yëngoo rek dootuñu amati jàmm. Ce matin, Mamadou n'est pas allé à la mer pour pêcher. le climat n'est pas clément. En plus, il n'y a presque plus de poissons à cause d'installation d'usines de farine et d'huile de poisson dans la zone. dañuy raafale lépp parce que jën boo nga xamante ni euh, dafay soog a juddu sax ñoom xeebu nu ko parce que dañuy wal dañuy wal pour am farine de poisson beneen bi nga xamante moo ci gën a garaaw mooy fi mu toll nii pour nga am benn kilo farine de poisson il te faut 7 de poisson boo nga xamante ni bu normal la pour nga mën am benn kilo farine de poisson. kon loolu it yaakaar naa ne loo nga xamante ni day faagaagal géej la. Ici, les pêcheurs restent sur place. L'installation polémique d'une fabrique de farine à poisson est sur toutes les lèvres. Mais peu le courage de s'exprimer devant notre caméra. saa boo demee fee euh, hôpital nit ñi dañuy feebar rek lu leen ko yóbbu usine bi moo leen ko yóbbee. Ah, si en day day impacté tamit. waaw boo duggee boo jaaree foofu foofu kenn mënoo dugg a jënd ndax ak xeeñ xam nga lu nekk ci bitib Kayar war a mën a jël ay cinquante millions mënatoo ci am dara. te li muy yàq ci environnement bi mu ëpp fop conséquences yi moom commencé na di am parce que li tax mooy boo fi mu nii ñëpp ñi nga xamante ñoo fi nekkoon di napp gisatuñu napp ba yàlla dogal na bon bu fekkoon cent la quatre vingt dix wala voire quatre vingt quinze pour cent yi euh, danoo mujj transformé seen gaal yooyu en bateau. ba fi mu toll ñi ñëpp fi mu toll ñu ngi si îles Canaries yi ñenn ñi jàll nañ biir Espagne. Au centre de transformation, une dizaine de femmes uniquement sur place. Habituellement, plus de 300 occupent ces lieux de commerce. ñu door a am ñun. Toute l'économie de Kayar est touchée. Les petits boulots dépendant de la pêche n'existent plus. Assez, ils n'en volent plus. usine bi amuluñu njëriñ gisuñu suñu bopp benn yoon maam xet gi doy na doy waar goo xamante ni ni muy def si xolu doomu aadama yi maam moo tax Kayar population bi bopp pour xeex usine bi pour mu bañ a taxaw si Kayar bi waaye maam waaj dafa ñëw pour jaay doole quoi. Pour aller vérifier, on quitte le rivage et emprunte le bitume. mètres hors du village, le bâtiment et ses installations apparaissent. Ultra et des caméras de surveillance partout. Nous tentons d'avoir les responsables. L'alerte des champs religieux Un son bien curieux pour une entreprise qui torpille les règles les plus élémentaires de l'environnement, de la santé publique. La négociation pour avoir un entretien au rendez-vous fut longue. Finalement, rien. L'entreprise, installée dans la zone depuis sous le nom de Barna Sénégal, est aujourd'hui rebaptisée subtilement Touba Protéines Marine. Son propriétaire, le voici, Boubacar Diallo. bien introduit chez les familles religieuses à Touba, étale son influence. Tawane qui traverse le village avec ses enfants qui jouent à côté. Pour être plus près, on fait le détour avec l'un des porte-parole de Tahaou une association qui défend les intérêts des habitants depuis l'installation de l'usine. Ici, au bord du lac, tous les déchets toxiques sont déversés là. Vu le lac, on sait que la population va tomber malade. je l'ai dit que c'est un, c'est une bombe à retardement. Avant même que ça, ça explose parce qu'aujourd'hui, on a noté qu'il a, il ne peut plus au lac. Parce tout simplement, il a assez creusé. Et aujourd'hui, il utilise le rive du lac. Il n'était pas concevable que, que le Kayaroa qui passe sur la route nationale et qui voit de l'eau sur le lac. Pour éviter toutes ces, toutes ces erreurs, il avait mis une sorte de canalisation. Et à de cette canalisation, c'est un trou qui est là. Donc quand l'eau coulait, c'était juste pour rejoindre le trou qu'il avait mis. C'est une sorte de fosse. Quand une entreprise vient faire des prélèvements sur les robinets, et ces, ces prélèvements démontrent bel et bien que qu'il y avait la présence de ces matières lourdes. On ne pouvait pas dire autre que l'eau était impactée. Anormal. Si c'était un danger pour les populations, je pense que ce serait arrêté depuis fort longtemps. Face aux journalistes, ils sont mis devant le fait accompli. Une réponse qui frise totalement le manque de sérieux contre un problème qui touche au moins personnes, disons toute une communauté. Actuellement, vous êtes dans les locaux, est-ce que vous sentez cette odeur Sérieusement, Non, moi le sens pas. Vous le Non, non, le sens. de poisson. poisson ne peut sentir que du poisson. Si vous entrez dans une parfumerie, ça vous le parfum. Et euh, l'odeur de poisson, le pot partisan Kayara, nous sommes des pêcheurs. Le lendemain, Kayar se réunit pour protester contre cette usine de farine et d'huile de poisson. Cette usine est en parfaite violation du code de l'environnement, en dégradant notre cadre de vie et notre environnement, avec une émission d'odeur insupportable, mais aussi un euh, euh, déversement des eaux usées au niveau du lac de Mbawane qui est aujourd'hui totalement pollué. Puis, des vies sont frappées, menacées. ay doom sama doom elle est asthmatique. jërëjëf laaj jërëjëf. pourtant je perds suñu mag ni ñuy fi mu nekk nii ku ne xam na ni kenn xamul lu mu doon li de ay feebar kenn xamul lu doon li fi de ay lompañ ay gune yu juddu malformation kenn xamul lu doon ay avortement jigéen ñu ëmb bay yaakaar mu mu kenn xamul lu mu doon ay jeunes yu toll seen di am tuberculose di sëq kenn mel ni bokkuñu Sénégal parce que benn doomu aadama ñëw ci ñëw ci dëkk samp xamante ne euh, ak Kayar mu yaatoo. le directeur de l'usine joint finalement au téléphone les mhm. a traités tous de mentors. dara pour l'heure Kayar subit des tortures. des tortures dans sa vie et dans son économie qui le contraignent à se lâcher, à agir, à reconquérir ses terres et sa mère.